asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu taa wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki liftahu habliya warsuko min kuñu ana day fi asila ajalan bil bishi mahmadin hata waqina bi dinillahi arkana yasir joye tuuba waxmini waqini adal wara watub bi samaskana kasama wal aradi wal hawbi ya musharikin lirud ma mashkuna ajib wasalib siman hasadi muhammadin la tawli fa faqan ba subhanahu wa ta'ala abu istamashun سامحا مسلمنا ورحمة من آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتربيه هي والله عبد الخديم المخديم ñëpp ñu siyaare fu waay di mën di déggee di wax aw tiis lool aku metti lool ci xew-xew yi nga xam ne ne mi ngi xew jamono jii ci dayo bu bu kawe bu jéggi dayoo nag mooy mooy mooy loolu ñu wax bëkk mi barsa wala barsaq xam naa ne lu lu lu réeréy la am na ñaari wet yuñ ko yuñ ko war a xoolee mooy mooy ñu ñu jëkk a xool wetu wetu wetu lislaam bi atteb lislaam bi ci ci def gi xool nag lu ñu lislaam dénkoon ba loola du am muy bu jëkk bi responsabilité kenn ki la bu ci topp di responsabilité société bi yëpp njiit yaag ñëpp rek ak borom xam-xam yi bu bu njëkk ba mooy alxaan dañoo wax ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen joo seen bopp ci ak alkande foofu muy lu am solo ndax ci lislaam noonu bakkan moom na ko moom na suñu bakkan moom na suñu yaram aw aw res wala xëtër bu ñu woon kaay ma may jox la milliard te nga joxuma ci wenn wala yooyu sëñu ko ku ne woon joxuma sa baaraam bi ma jox la milliard sëñu ko dafay xaram moomoo ci dara ci sa yaram moomoo sa ruu moomoo sa bakkan moomoo sa dara lépp yàlla ndax yàlla moom moom gi ñu moom nga xam ne ñëpp la ci yemale waaye yow mi mi ko gëm daa wax ne inna laa shtara minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna dana ah gaa yi day ñi nga xam ne day gëm nañ ma jënd naa ci ci ci ñoom seen bakkan jënd naa ci ñoom seen alal nee na nee na nag dama leen di fayee mooy àjjana laa leen di di fayee ku ne xam ne ne yàlla moom gu ñu moom mutlaqan la kon kon bu jëndee ci noonu lim moom kon lool kon loola dañoo bëgg a taw bi rek xanaa waaye waaye moom jëndul lu moomut coono yi yi yi su bare ku ñuy wax Mouhamadul Farid ab ab économiste la woon bu mag ca ca Égypte dafa waxoon ne laa xayaata ma ma maal yi si wala yi sa ma xayaat kon kon jumbul mu ne dund mënut a ànd ak ñàkk espoir ñàkk yaakaar. waaye nag naka noonu ku ñàkk espoir mën a dund kon daal moom espoir mooy tax dund am àjjana àjjana ji ñu yaakaar lool espoir rek la suñu tubaab yi ñu yaakaar lool espoir rek la nga xam ne moo tax gis nga sun borom clasine yu ñu ne bi xëy bi mu ñuy wax ay àjjana ak na mel ak yu bari ngir bëgg ñu am espoir loolu rek la loolu rek la ko nga xam ne kon dund gi dëgg tigi ci espoir ci lay tabaxoo waaw yaakaar waaw yàlla na yàlla dëgëral yaakaar yi kon kon moom bu njëkk bi bi bi kon dara jërut dugg ci gaal goo xam ne ne xam nga ne xel la cim xel wolof nee na bët yéen wut waaye waaye xam ne la bopp attan boo ne jàkk gaal loo ci xam ne gaal gi mënut a dem fenn moom mënut a dem téeméeri mètre téeméeri kilomètre war koo mën a daw nga dugg ci dem ci ay junni kilomètre loola kon kon loola loola kon moom loola kon ci xaru lay doon waaw ci xaru mooy dugg ci loo xam ne la xel ma jooyal mooy mooy alkande ci yenu maanaa mu am safaan ba bu amee alkane bu ci amut loola loola ci xamu ko lool loolu la ñu tuddee al loolu la ñu tuddee xaru waaw wax na ko ne yu am solo ne xaru ci islaam yëfar yëfar du xaru noonu ñi gëm ne islaam ñi gëm islaam ne gëm ne yàlla moo moo nu moom suñu lépp kooka mu ñu tuddee ñun ci xaru nga xam ne mooy koo xam ne dafa yàqal yàlla mooy leen boo dikkoon sa kër fekk fa am ko toj si sam néeg xanaa danga mer ñu ne waaw ma ne ma ne noonu la moo tax ko suñu mbaam boo tojee boo yàqee jëmmam jëmm defar ba mu jekk nga yàq ko moo xam da ngaa dagg ca jëmm ja dara jaay moo xam da ngaa da ngaa rey jëmm ja yàq ko loolu ko ne xam na ne borom bi dana dana ci sa mer même borom bi nag moom waxoon na ko leeral na ko wa man xatala nafsan bi xëy bi xëy nafsin bakkana maa xatala nafsa jami'an ko rey bakkan bakkaar bi ngay am mooy mooy mooy sayyidina Adama alayhi salaam ba adduna dukki bindee fi yëpp di nit ñëpp nga boom leen bakkaar boobu ngay am seetlul seetlul bakkaaru boom ab yonent ni mu réyee moom seetlal boom bakkaaru boom awal yi ni mu réyee seetlal boom ba bakkanub koo xamante ne ne ne sax du ab julit waaye nag nag amut ak ak ak yoon amuja nam réyee yow nag ñu lay bindee fi yëpp sa sa ndey ca la bokk de sa baay ca la bokk de sa sëriñ ca la bokk kon boobu boobu boobu bakkar rëy na boo mën axyaaxa naka noonu ku dundal bi benn bakkar yiw wu tol noonu ngay am bu ñëwee ci responsabilité société bi kon da da yooyu danañ ko soxlawaat nga xamante ne ne kon nee naa gone yi bu dee daa metti nekk espoir metti metti ba nga bëgg a xaro ni tubaab yi xaro ma ne waaye yéen bokk leen waxaan ne war na wa tarjuuna minallaahi maa laa yarjuun ne ne ngeen ne ngeen doon sonne noonu la la la la tubaab bay sonne waaye ba mu bëggee xaru moom yéen yéen da ngeen a bokkut ndax yéen da ngeen a yaakaar ne alaxira am na àjjana am na sawara ngeen bëgg a dugg ci ci àjjana bi képp ku ku xëyee fii mbaa mbaa mbaa mu gonte fii dem dem barsàq ci noo xam ne yàlla gërëmu ko bu duggee sawara dana xa dana fàtte coono bu mu amoon ci àdduna. ndax méthode yi ko gën a foor fuuf moo nekk alaxira ku mu nit ba dem ba dem alaxira wala soo ko yonte kàddu ko patata yàlla yàlla dana la jox ba nga fàtte coono yi yoo fi ne nekk ci woon adduna kon kon loolu ki waajaa ci waajee moom loolu waajee nga xam ne daa bëgg sóobu gaal yi moom moom loolu ki nga xamante ne nag beneen beneen pàcc bi nag mooy société bi société bi day mooy sëriñ sa mooy kilifa yi adduna yi mooy borom xaalis yi mooy borom xam-xam-xam yi ñoom de ñoom de dafa am lu leen war war lu rëy ki ki nga xam ne mooy mooy adduna ji di kilifa yi aada yi ñooñu day ñoom la si dina war waxoon rek bu ab këleem téléphone ci àllub sàmba su bis penje yàlla dama laaj lu tax nuyu loolu ko yoon wa ba du tërëf ko kon bépp njiitu réew ci boo xam ne jullit nga war ci waroon nelaw waroon waroon nga ragg sax waroon nga ragg waroon nga tiit ba ragg waroon nga tiit ba ragg ndax sa responsabilité rëy na rëy na képp ku la ko woyofalal dalay nax te la koy woyofal day foo fekk ku lay woyofalal ëllëg kooku kooku ci ci xamu ci dara gàngal ma gàngal ma xaruji ba ko suñ tuwaay di di di di dénk dénkaanam la nga xamante ne te ne di di ko fàttali bokkam ya silmaxa jóob fat joor di di ko fàttali wóor ya ne ko daal li nga xam ne ne boobu am njaal la la koy def ne ko nag li ma lay xamal daal mooy nga ji nga génn ci àq nit ñi ci ci ci delloo seen àq ya bala bala ngaa daje sa borom ne ko nag saasu malakul mawti ñëwee pétale yaag kënu yaag yëpp mënut a tee malakul mawti ak si ci sa kaw wax ko yu wax yu am solo yoo xam ne loola bu loola ka ca des mooy sëriñu sëriñ bi bu doon bu bu wóor ñëwee wala ndawam mu waxe ko noonee ba ba buur ba tiit. sëriñ ba tiit moom it ñu ànd tiit kon kon kon bu bu bu bu bu bu nit àddina ko demee këram yaakaar naa dana dana dana tiit loolu dana baxel ne responsabilité bi rëy na ñu ñaar ñooñu mu sëriñ ba mooy ñu tug àdduna ki nga xam ne ñoo lëkkaloo ba tax nit ñi ñàkk espoir gone yi ñàkk espoir seen bakkaar rëy na lool fa yàlla seen mos seen masuliya seen responsabilité rëy na ndax bu nit àdduna ki dikkee sëriñ ba dogal ko waxal ko yu baree bare xanaa daan kii xanaa de xanaa xanaa de xanaa daal xanaa daal ñi mu wute wax lu dëgg dëgg xanaa ci diggante ma ak boromam da da yaakaar ne suñu ba la wax lépp dëgg la mën naa am politicien ñoom ay seen xel ya xel ya jaxasoo ko yu jaxasoo nit ñi bari na darañ xam ka wax lu wér darañ xam ka waxut lu wér waaye ginnaaw xaaloolu léegi kan da suñu tuwaa waxoon amatut léegi nit ñëpp nga ci bunti wuur ya kon moom kon moom sëriñ ba politicien ba xam na ne sëriñ ba la muy wax dara la ca xamut waaye waaye kon kon ginnaaw bi nga xam ne yow sëriñ bi li muy wax dara xamu ko ci daa bëgg la neex loola loola kon yow waru laa bégloo da ngaa war a ciit xam ne kat kii moom du wéttal borom xaalis yi nga xam ne ñoo war a toppatoo nit ñi xaalis bi yàlla dénk wa saxlafakum fiha wa taxalafakum jë suñu boobu nee na dama leen na jox dénk alal joo xam ne maa ko moom ne leen yoral ma ko defal ma ko barab sàngam borom kaay si ñoom bew nañ bew nañ ñoom bew nañ yàlla nanguñ ci def dara mu ngi koy mu ngi koy yoonu seytaane donc ci la ñuy liggéey ñooñu nag su boobaa moo xam moo xam borom kaay ba la moo xam sëriñ ba la moo xam nit ko àdduna naka la borom dombay tànk ya bu ñu dencee alal yooyu ay milliards dañ ci ko ba dem alaxira suñu boobu nee na da daa leen ko takkal ab caq muy ñangur moo xam ne da da nga jël daa bare bare booba bu xusum ñu takkal ko ko mu koy mat te te du mën a takku moom. la ci gën a ñaawati ko seen xam ne teel moom daaw da daa rënk alal ja wala si ne yéen a ngi dahaba wal fidda xam ne ñoom alal alal la ñu rënk di di wéy te kat du du leen fekk ci ba mel de kon ñooñu kon responsabilité yi ko rëy na. woy jur ya topp sa doom amoo dara nangam nanga yow nangam ba tax mu dugg ci ci ci mbëkk mbëkk mi yow yow kon bakkaar ba kon na ca sëñ ba amee bakkaar na ca na na ca borom doomu tànk amee bakkaar na ca borom xaalis ba di xool gone yi ba amatuñu yaakaar yow it dañ ci ci am bakkaar jigéen ñi nga xam ne ku ku leen bëgg boo joxewul xaalis doo mën a am ci ñoom te te ñoom kan ña ngay taxawaalu góor ñi taxawaalu loola ñoom it am nañ am nañ responsabilité ci ci biir àndandoo ngir yàlla jeex na lu ko waral mooy dañoo gëm a tur yàlla. bu dee nit ñi gëmuñu yàlla nag seen relation yi duuru tegu ci lu muy matière kon nag su waa bakkaar bi kon ñëpp dañ koy partagé séddoo ko kon kon day mi ngoog mbëkk mi day day mbir la boo xamante ne psychologue yi borom xam-xam yi war nañoo wàcc ci géew yi. ñuy xot ba ñuy def conférence nañ waxtaane mbëkk mi wax wax dëgg nag kilifa ya moo xam kilifay diine ya moo xam kilifay aada yi la moo xam borom xaalis yi wax leen dëgg ne kat yéen yéen a tax yéen yéen a wajur ya yéen a jigéen ya yéen a tax ba ba ba gaa yi ñàkk espoir ba yemale barsaak barsaak kon de meew kon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla nañu sunu borom boole dafa topp yàq sama sama. marché lañ lañ jàng kooku la jëriñoo li li li wax nekkul boobu nekkul ci jëriñ maanaam mbëkk mi li wax mbëkk mi def ci gaar yi ilmu nafs li muy jëriñ mooy jàngat suñ problème yi yi indi ci suñ biir te néexut a xam. ki bëgg a dem ca barsax barsax nee na la wax lu tax moom léegi lan moo ko war a jaral lan moo ko war a jaral barsax lu lan moo ko war a jaral lan alxukuma ala shay farxun min sawri maanaam bala ngaa àtt dara da ko war a xam kooku bëgg tëddee daa am yëg-yëg boo xam ne pour moom yëg-yëg ba dee la ci moom ku ñu wax Mouhamad Farid ci Égypte
ab ab ab kii la woon ab iqtisaadi la woon bu mag daa waxoon ne laa xayaata ma maal yësi wala yësa maal xayaat ah ana toog toog toog suura bi gis nga ko usaam usaam ñu ko laa xayaata maal yësi wala yësa maal xayaat ñàkk espoir espoir fi doon réew mi nit ñi dañ maa maa xeeta maa yë si wala yë sa ma ma xeet maanaam léegi ñàkk espoir espoir waaye nag maa laa laa xeeta maa yë si maa yë si maa yë si waaw wala yë sa waaw wala yë sa ma ma xeet maanaam jamono yi dañoo tollu Sénégal nit ñi dañoo ñàkk espoir amuñu yaakaar amal al yësu bind bi moom mooy amal amal am yaakaar boo ko defee moom mën a dund dund ndax dund moom yësu dafay rek gone yi ñoom dañoo amul amul yaakaar suñu politiciens yi ñoo yàq réew mi yàq bu kon boo xam ne ne ñëpp a jàpp ne politiciens yi mu kenn mënu leen fee jëlee sëriñ si ànd ak politiciens yi xaaloo leer kat ni abwaabi salaati yi tax duwaay tamit ku la max yi sëriñ si maanaam léegi ñooy baaxalal politiciens yi lépp politicien bi ku bon la ku bon a bon la sëriñ bi ne ko yow sama dooma sama rakk nga sama nangam ñaanal ko politiciens yi moom léegi jeex na moom yow yow yow faqir bi yow mënu dara yow mënoo koo daane yow kon léegi gone yi leen di tax a dem moo yësu nit yësu nag moom waaye da koy yëg waaye sax da ko wax koo gis koo gis mu xaru yësu la am na lu ñu tuddee ak tamrit tamrit mooy sage-femme yi sage-femme ak tamrit tamrit xam ngeen lu ko indi tamrit dañ ne am na wérdi goo xam ne waa ji wérdiwul marit bi wérdiwul nafsiyan la daal goo xam ne dafa toog adduna jëpp naqar na ci moom xamul nu muy def léegi nag léegi xel xaar ya ëpp na ci moom ba mucc for wérdil ko wérdiwul bu doon dafa soxla woon am million bu mu jëndee ab saret tumbaam nga jox ko ko mu wér wérdiwul de xel ma wérdi sama sama benn waaye nee na xuma commandant fii xuma kii ba commissaire bi nit ñëw na fi moom ne ko jàpp ma tëj ma mu ne ko luy loru mu ne ko soo ma tëjee dépasse wàcc ma ñetti fan tëj ma ñetti fan nit ku ñëw ci police ne ko tëj ma ñetti fan lu tax ndax dépasse wàcc ma sëñ bi sëñ bi kooku kooku kooku yësi la yësi ok sëñ bi may ma tourné juróom mi rek ñoom li may wax ma ëpp solo maanaam maanaam am na benn waay bu bi may wax bu jóg bay daam ab borom saret ñu ne ñu ne daa wéré bi mu wéré de ne ma ne moom du dem hôpital waaw ndax hôpital la li nga xëy si mu amul day toog day toog day toog waaw sëñ bi kooku am na yaasu de liggéey na ba wéré di xam na ne mën dafa jóg waaw ana sëñ si ana sëñ si mi ngi mi yàlla ñoo ana moom xanaa ñoom gëmuñu gëmuñu xanaa yàlla ana sëñ si bii wala si ne yekk ni sunu dahaba wal fidda ñiy rënk anal su ëllëgee jaani ña nguur yoo xam ne dafa danga daa bari ba xusu bopp ba xusu moom lañ koy takkal ak cax mu koy mat aw ansil si xaa xaa dem ñu loolu loolu lu ko naan sëriñ si ñoom yor seen i milliards ànd ak état bi état bi ànd ak ñoom luy tee ba gone yi duñu am duñu am yéesu ni kon yow sa baay bi nga bëggoon a laqatu sa baay léegi sa maam kon kay foofu nga gis xam nga ku ku dawoon jëm ci ak garab gaynde di di ko di ko dàq mu daw di final ba séen ko ab jëngu léegi fa la jëm ko gaynde gi mooy état ñam noonu bi mooy sëñ bi kon léegi ku nit jëm maanaam léegi nag yéen bu ñàkkee sa bu bu bu ñàkkee nag amal muslim mu'min moom dafa am xal li tax li tax gëm yàlla am njëriñ gëm yàlla bokk na ci ay njëriñam mooy soo amee ësma nafsi bu rëy rëy bu yàlla teewee fi yow ësma ba def nu mu demee yàlla dafa la bind ne la taalamuuna kama yaalamuuna waaye nag ba tar juuna min allahi maa laa yarjuun yéefar bi bi bi mën a xaru ngir am problème yow bokk leen ndax da ngaa yaakaar loolu neexul am na ajjana am na ala am naa ajjana joo xam ne boo boo boo boo fa duggee fàtte sa problème yi muñal muñal ana ana sëñ Tuubaa sept ans ci àll ba sonn lool ana mu jeex na di muñal lu metti metti muñal day jeex bu bu bu jeexee ba ñëw la kër goo xam ne duutu rab moom lépp ko mu'min bi wa tarjuuna mina llaahi maa laa yarjuun moom dañoo am espoir ca ginnaaw dund tubaab moom bi xaru nga amul espoir ginnaaw dund par moom dund fi la lépp yem ñun jur ñun ñun dañoo am espoir moom ñu am nañu amal ku naaka amal ñun amuñu yësu noonu amuñu yësu noonu bu waxtu wu nekk ab jurit dafa war a jàppee ne kan yow sama jëmm ji moom ma ko moom ma roogi sama baram bi fi ñu ma ko dagg jaay dafa xaram bi ma fayal milliard sama des boo ko jaay de dafa xaram benn cër si yaram bi mu ma ko yàllaa ko moom moomu ko de inna laa ashtari minal mu'minina anfusahum wa amwalahum mu moo ci dara waaye loolu la kay benn benn loo ma tere sëñ bi sëñ bi loolu am nañ am am am na amal di am nañ espoir am nañ ko kon yow lu metti metti yow jullit bi xam ne la moom moo sa bopp gaal gi si ñëw ci dugg wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla nee na mayu ma ne nag sama jëmm ji ma defar ba mu jekk def ci ak roo nga de nga de ko yàq sëñ bi na nit ñëw sa kër fekk sa néeg mu tëj ko boo boo ñëwee ku tëj nga ne xanaa jiw jiw ñëw tëj ko doo mel yàlla tabax jëmm ba mu jekk jëmm ji jëmm ji moo gën a jekk ab ñoo gën a jekk lépp gën koo sophistiqué yàlla defal lépp nag nga yow yow dugal dugal si yow ci gaal bi daal di dee mu jeex da ngay gën a dana jeex déedéet sala sala ma nee na ku rey sa bopp jumtukaay ba ba ba nga ko reyee jumtukaay boobee moom moom lañ lay mbugale sawara ah ah gaal gi ku ci dugg xam nga ne gaal gi mënut a dem Espagne ci mu xel boo ci duggee bu këppoo da nga xam. ah xam de sëriñ bu la man di wax leneen lu mu wax mu ko dëgg mu dëgg de alxuraan moom bu xasee wax moom kenn mënut a waxal leneen wala tulqu bi aydiikum ilaa tahluka intihaar li ko tax a rëy intihaar xaru mooy da ngaa mab ba kër jàmbur yàlla te moom njëkk na mab yaay kenn yow yaay kenn yow. ay kan ban doole nga am ba mën a màbb kër kër kër kër yàlla yàlla ku màbb këram dalgu te kaw ma ne waaye ji dugg ci mbëkk bi daa sonn dañ ko naa koy ëmmoo dara teg ci nangam waaw ma ne moom wut na baaxee sawar na nga su fanaanee sawara dana fàtte maanaam lu mu yéene woon a am ci ci ci ci bas génn guddi génn guddi benn lax sa bu nit dugg sawara benn lax sa bu nit dugg sawara dana ko fàttali woon dana ko fàttali xéwalam yëpp problème boo am dugg sawara ko gën a rëy problème bu nit am ba da bëgg a xaaru dugg sawara ko gën a rëy de sëñ bi sawara sëñ bi xoolal fii dañ ko def def ak fuur dugal ñu fi rek ñu ne kat léegi fuur kat dañu fi dugal kat ñaata ñu ne xanaa une minute une minute daal une minute seetlu ko une minute coono bañ fay laaj mënuñ su ko wax moom amaa nag nag sawara fala fala ñoo ngi nekk maadaama li sama watu wal am loolu loolu loolu ñaata milliards at la sa biir na métti képp suba ba ngoon sa adduna jub bëgg a tudd te biir doo nga la loxo métti de biir bi loolu ngay métti ah lé léegi gi yow sawara nag moom sa lépp ne sa lépp du permis de sawara foo dugg alxuraan wax na ko da da dañ leen di jëng ay jëng fuur ba yow monsieur jëng leen ay jëng solo leen mbaxana weñ weñ mbaxana mi ñu mas ko courant mooy togg jëmm ji yàlla tum naa wax ji yàlla ko yàlla bu doon teel da ngaa tum naa wax ji loolu xam nga loolu doomu adama ni mu weefe yàlla dugal ko ci ëpp fuur jégg ko solo ko mbubu mu weñ mbaxana mu weñ mas ko courant muy togg jëmm ji togg waaw xam nga su ma su ma togga amul dee di amul dee ay bool la ñuy def di di ko dëkk mais gën ñu seen biir ba moom la ñuy lekkaat dañuy xiif ba xiif mara mar ba duñ duñ ko mën a bañ a lekk te duñ ko mën a bañ a naan ah seen biir ñoom ñoom monsieur buntu ba nee na àll yi muusa la dañ koy bopp ràpp ba ngelaw du dugg duggee. sëñ bi yàlla yàlla ma tax mu ñëw yàlla nag du sa bàyyi du sa maam du tëri yàlla bu ñu desi bi bu yaakaar ne yàlla dafa am yërmaane ji ñu wax médecin buy opéré bi yëpp am na yërmaane waaye yë yërmaanam ji bu ñu yërmaane mais ja moom yërmaane mooy moom da koo bëgg so da bëgg lool ji ji jigéen bi yàlla bu lay mugal da lay ras da ras ji da ras de te ba daa am bakkaay boo xam ne ruu gi balaa set borom sonn kon gars yi laa xayaata maa li yëg si képp koo xam ne amoo espoir da ngay alko fa dund da ngay meeseya espoir da ngay dund dund ko naqari walaa yëg sama xayat képp kuy meeseer moom dund dund dootoo di dootoo yow sa xol bi day day dee di li ngay yëg ci aw métit nit ñi mënuñu ko xam waaye nag wasantuuna minallaahi maa laa yarjuuna moo lay may amal yow kat gëm nga ne alaaxira am na gëm nga ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko moom gëm nga ne ab ab jullit nga gëm nga ne boo faatoo nga am ajjana ajjana jooju na la doy sëkk coono boo mën di am boo duggee ajjana fàtte waaye ci coono boo mën di am boo duggee sawara xam ne coono boobu amutoon maa ngi leen di yee maa maa ngi leen di woo ci loolu lenn lu jar bokkaale yàlla amut ah sëñ bi boo may dara baax maanaam lenn lu lu lu jar bokkaale amut lenn lenn lu lu jar rey nit amut lenn lu jar xaru amut amutoo amut ndax ku ko def coonaay nii bis boo xam ne lépp loo doon ragal ci ab coona da nga am bugg maa ngi maa ngi maa ngi leen di yéegay maa maa ngi leen di yéeg sëñ bi ana yowaan yàlla ko def na yàlla waa ji dina ko damaa ñàkk mu ne ah ñoo ko kon sàcc bi bu dee sàcc man bu ne wane sëñ bi yoon amul sax dee sala sala man nit ñëw fi moom ne ko dama ñàkk dala ñàkk waaw mënuma dara waaw sëñ bi la dama nekk da nekk ci ci waxtaan ñii de moom même bi kenn da dana baax waaw mu ne ko loo am mu ne ko mu ne ko xanaa xam nga de dañuy am ab sër am lu ñu gàccoo mu ne ko xanaa tarlay bi bu ko andi bu jël ko daal daal koy jox saxaaba yi ne nañ ko jaay jaay andi mu ne ko ne jënd ci simiñ ngeen simiñ mu ne mu ne ko mu ne ko del dem taxani dafa ko jóoral fii jël taxan di jóor jóor ba pare loolu mu ne saxaaba yi na na na nañ ma ko jaay jaay ba mu daan xaalis bari mu ne waa ji am waaye sax mu ne ko dégg waaye sama tama waa ji nekkut daa ko mun pexe fi mu toll nii yéen si li ñu ko tax a bon alhamdu bi yadika waaye waaye gisoo ko gisoo ko di yi asri day tax ba doo gis waaye am nga pexe benn benn unité soit bala méng benn professeur am ci sira ne ko yéen Sénégal yéen seen suuf si ni mu tàllee baax lool autant yéen du du leen ci liggéey ensuite lu tax yow suuf si suuf suuf si yaatu si Italie dem dem naa fa ñu romb kër goo xam ak kër fan ak kii bi xool kër gi defee nii soit bi daa def nii fii fii fii la def këram lii lépp di ab tool man loolu damaa yéem espace bi yàq la mu def mu def ko ab tool su dee sapon xam nga sapon yow dañu dee ba terrasse bi ci kaw da ngay def ab tool tool espace bi bëri soo defee ab tool man nga fay toog mu nekk ab certain ba noppi muy li ngay dund ci kër gi fay meññ Sinwaay yii di tabax xaw ma yor projet Touba bi si si fañ ne fa la ñuy bayee lépp ñoom li ñuy lekk bu jël dara waaw ana ngeen yéen ngeen du ngeen jéem a dem boobu sax gëstu ba xam ñii nu ñuy defee lii waaye da ngay solo ba jekk toog bi rek ñu xoolee maanaam léegi yow rek du yow doo kenn yow boo defee ba liggéey nga naan da ngay dem ci ci ci bëkk ma doo jéem a trouver solution. alxal bi yeddi ga. jéem a la wut portable bi ngay yor. gone yi ma ne portable bi yor ñaata la quinze mille jar wala cinquante mille mënut a am benn projet bu ndaw boo ci def yow looy looy looy doyee portable yow ku la soxla kenn soxla wu la yaa ngi jënd crédit yor portable cher léegi yàq la doo ko doo ko jaay jëndee ko wut ci ab projet bu ndaw vacance jot na doo dem jàngi benn métier mu ndaw mu ñuy mu ñuy parabole yi mu ñuy defee nangam mu ñuy defaree téléphone nga nga mën cee liggéey loolu nag ci am ko si ñoom ba nga xam ne sa bàyyi lu mu jënd café suukar nangam doo ko def da ngay tëdd rek yow alxallu bi di ga yaa ko sut wér nga dara dalu la am nga doole mën ngaa jóg dox kilomètre dikk te doo wér kon am nga doole ah kilomètre nga dox ko dikkaat te wér di woo am nga doole ko di yow ah sa xel mi mi ngi fi xam nga foo jaar ci yoon xam nga foo jaar woto bu ñëwee da da da da koy mën kon am am nga am nga xel yooyu seen bi yow amoo kon loo man man nga dara kat sa xel mi nga da ngaa gisut li li nga man Sénégal boobu bokk na ci seen problème di di di xool waa ju dem ci mbëkk ma indi oto bu rafet waaye fàtte nga ne moom bu dee woon dem sa wala fàtte nga ko de te kat gis na de waa ju yor oto oto bu rafet ba am na bakkaaru xaro waaye ji ji ji dëpp seen naan ko déewut am na am na bakkan xaru bis bañ ci nekk lay fay sëñ bi nañ di yor xel yi ah nañ dikkaat yàlla mu ne moom de ab jurit muumul boppam ba su ko neexee mu rey ku rey sa bopp alko sala sama koo de sala sala man nee na ci ci hadis képp ku rey boppam mbirum xam na yërmande yàlla ji li muy yaatu yaatu ku rey sa bopp nee na sa mbir xam na de ku la maanaam ci xam ku rey sa bopp ku rey nit sa mbir xam na ah gars yi gars yi fi mu toll ñi ñi ñi day sa mbëkk mu doon yàlla di ñoom maanaam ci xool daaw magal ko Burxaan jiwee si yaa naa jiw leer ay gars yu dugg fii suba teel yor oto ba nay ndaw daw xelu metti ñaari gone ci génn kër faat waa kër nga jóge Porokhane ñëw de maa ñu ñëw ñaari fan ñaari fan a des ci Porokhane ñu ñu faat tey gars yi indi leen indi leen Touba rob leen saraxal leen ci bis bi daal daal di màggale ma ne ma ne loolu na kër gi ñu dëkk laa de ñaari nit ñi kër gi ñu dëkk biñ faatoo Porokhane biñ faatoo Thion ñu indi leen daal leen di suul def lépp ci dëkk bi daal ñuy demaat. parce que mu jeex parce que leen amuñu jot nit ñi amuñu amuñu temps ku dee yaay dee amuñu temps de mbëkk bi ku ñu faatoo. gars yi saraxa la noppi nañ ci am alko da ngay alko ci foofa alko yaa xam. sëriñ bu taxaw di fen day fen lu mu wax lu mu wax day fen xamul ci dara xamul te mënu ci seer moom mënu mënu dara dara la mënu de moom dara la mënu mënu dara dañu bi yàlla mi la bind mooy la toj ko ah gars yi ndax leer na ah dara daal lu lu jar dem sawara mu amul njaaloo njaaloo lu mu neex neex sawara bu ci duggee xam ne njaaloo ñëwul rey nit lu mu la jaral jaral boo reyee nit boo demee sawara xam ne xam ne loolu dara jëru ko ku rey sa bopp coono boo mu amoon ba rey sa bopp boo demee sawara xam ne dara jëru ko kon siku bi day njaaloo rey nit rey sa bopp xam nga bakkan bi ku rey sa bopp ba ba nga rey nit xam nga bakkan bi lu buy ama man xasara nafsan bi xëy na sin fekk àndama xasara sa jamian aadama ba ila nafsi fi suur rey leen bakkaar bakkaar boobu boobu boobu boobu ngay am te xool de rey ab yonent rey sa baay rey sa sëriñ rey wali yi bakkaar bépp ngay am man xasara nafsan bi xëy na sin amul amul yilla fakkat maa xasal naa si jamian naa si noore naa si jamian nga rey leen yow yow kenn kii bakkaar boobu moom moom nga wa man ahyaaha nag moom it naka noonu la ku dundal bakkaar yoolu ku dundal ñëpp nga yàlla kooku avance la avance la de du waxi du waxi diw de kooku waxi yàlla la waxi yàlla rek sama bay dafa naan nit ñi dañoo war bu ne yàlla de ñu xam ne yàlla wax yàlla moo wax du du doog ñun de sëb sëñ waxut yénti waxut yàlla mi bind yent bi bind sa sëriñ moo wax ah gars yi leer na di gars yi yi yi si bi nga ñëw li ngay deeseere mooy nga am yaakaar watar juróom yëlla maanaam ñi jënd nga gëm yàlla ne yàlla moom kat moom adduna lu métti métti wutal la ma kër goo xam ne boo fa duggee fàtte ci coono ah Afrique bi boo xool ni ni méttee tàngoor weet nangam beeg ñaawaay beeg bàq beeg pënd bi lépp ñaaw soo demee war a ba ñëw naan fii xam nga mënu fi def waaye tey dafa dëkk li te boo jógee Égypte ñëw aéroport fépp ñaaw ñaaw ñaaw ma ko tiit ma tiit ma tiit ma Égypte jar jar non jar Europe maanaam tiit la def ma dikkee ma ma maa noo ko tiit ndax garab yi ma dund ma dem Madina ci kaw ne fa ay weer dikk Ndakaaru Ndakaaru la fa dem xaar bi gën a ñëwoon gis gis nga de te axaloom bi ma miinee lu rafet Ndakaaru dafa ñaaw ma duggatee ci lu ñaaw Ndakaaru la. dafa amut Sénégal la am yàlla suuf si Sénégal bii la mu may. oh soo demoon tey naar yi wala nga dem Europe di dox. police bu seen yaakaar ne yow lay waxal nga ne Sénégal yow di dox yow nànk yow da ngaa dikk ci réew mi yow fii nga am fii la yàlla may waaye sëñ bi sëñ bi nañ ko jéem a baaxal nañ jéem a bay nañ jéem a taaba taaba nañ jéem a def lu nekk nangam waaye moom bu ñu dara jaral joxe bakkan bi bakkan moom kenn benn yoon dong lay dagan mooy ci jihaad fi sabilillah yàlla an li kalimatillahi taala allati hiya al-ulya booba dong lay def xel wala boog ku la bëgg a jël sa bakkan boobu te amoo meneen pexe ci fang loola lu may dangaa jël bakkan su ma dagal waaye nag lu xam la amoo menn pexe mooy aaroo lu may jël bakkan yàlla nag mi ngi lay gis xam na ne ba xam yow li nga wax dëgg la am dëgg defal ci aadama ra doom je ba ko ba ko ba ko mbokk ma de rey mu ne ko la it ba sa ba sa tege dëgg li li takkatul nii maanaam bés bu ñu dee li ak kulaka ndax loo loo ci loo bëgg dama bëgg sama bakkaar bi nga ngay jël ko fi mu toll nii bu bu la benn waaye doon rey ba ko mu rey la moo gën a wóor bu la reyee moom sa bakkaar bépp lay si bëgg bu ci moom te boo ko reyee mën naa am rey ba tugul ci ci yoon ndax mën naa am. aw ya defoon fee boo ko dul tànk bi mu dam du la mën dara te defoo ko jël ab jël ab ab fetal duru ko ci bopp nit te duru ko ci tànk yi du tax ah mu yow fetal la boo tax mu munoo dakk tànk bi duru ko léegi duru man dara waaye nga dakk bopp nga wax ne nag dama bëggoon na rek yàlla gis na ko de loolu loolu loolu loolu daa ngi leer na kon daal lii gaa yi nekk dañ ko mokkal laa xayaata mu arama la Muhammad daan përi ak ak ab économie su bu mag la waaw moo ko waral banque am na lu ñu tuddee banque misra ñoo ko créé woon waaw boo war a engagé ne boo yor lépp waaye ñu fexe ba créé ab banque bi moom moom la créé ndaa naan la ndaa naan la ndaa naan la day tukki man amul yéene xam ma
ah ah li li iskal mooy ñetti rekkaat ak amal si safaan bi mu yeesu ñetti rekkaat fekk na ma waaw ça ki dugg ci mbëkk mi dafa ñàkk yaakaar ne mën a turam
comme ça ki nga xam dafa xaru am bi bi mu dugg si gaa yi pour dem ah bi mu dugg si gaa yi pour dem amul woon yéene xaru daa amoon yéene egg léegi kon su faatoo ko daa xaru léegi
alxuraan dane wala tulqu bi aydikum bi ay taxlu ab looco boo xam ne xam nga ne mënut a daw junni kilomètre nga dugg ci ne mën naa mën naa am yàlla ne ina sanna laa yuxni min alxaq shay'a jot jot mënut a wut dëgg waxal leen loolu waxal leen yàlla moom la moo la ko am ngam xel bu dugg ci dara dugg ci tëdd ci tëli ba oto aw ci sa kaw te texuta dee am naa ci am naa ci firnde keer jëlaan taxi wàcc taximaan bi mere ma maanaam léegi maanaam bëgg ma fiir sama siis bi la la la siis bi mooy siis yi nekk ci kii bi pneu bi aw na ci ba ma dégg foddet ji xool sax defu ko kooku yàlla la waaye am na koo xam ne bu doon moom dee na kooku yàlla lu lu ne mën naa am waaye yàlla dara la yow ginnaaw mënoo dara defal li nga mën walla oto taxi aw ci pneu bi aw ci ba foddet foddet ji fo- foddet xam nga foddet def na ko sama sama tànk ma ne nii yëkkati dara méttiwul maraay dara xusul kooku yàlla la waaye nag yàlla du ko defal ñëpp nag wala xarxul xaa rek wala bu ko kon ne ne nekk xaa kon maanaam léegi mbëkk mi ku dugg ca gaal yi ñàkk solo yooyu ku ca dugg dem da ngaa xaru xar xaru nag muskilaam mooy xamee suñ lu su ko ñaanal xamee suñ lu su ko ñaanal eh jégal ko ku ku xaru dañ dañ koy bàyyi yàlla
lu mu ko ñaaw mu jégal ko loolu du jëgg Macky Sall boo toog boo boo ànd ak sa waay ba def ci Macky Sall day mu tag toog waaye jël fes doomi Macky Sall day na ma jigal ko ah boo ko waxee da da nga nekk digg ah sëñoo ko
ah mais jullit la ah comme moom jullit la moom ah ki nga xam ne daa xaru def loolu noonu jullit la
li li li lislaam xaru bu muy jullit yëfar du yëfar du du xaru ah kon léegi ko yëfar bu ñu waxee xaru rek jullit bi daal waaw kon jeex na buñ ne buñ ne buñ ne ku xaru yëfal bu ko jël yàlla ki mu considéré mooy julli leer na ah naa leer xaale ah ah oh atte ku ko xaru ngay am yow doon doon dana faatu woo am nga at am nga am nga am nga bakkaar waaw déglu leen ba xam soxna soxna si fulla leen ne fulla ne ko jaxande waaw avant avant at bi di am.
waaw bu daan tukki jaar si suuf si.
ah ay dañ daan dox kon ay jërëm yu noonu.
waaw bu dee ndox la yaa si gars yi di jaar waaw léegi bu ñu daan jaar jaar loolu xaw a wër bi.
maanaam gaal la goo xam ne am xel moo ko liggéey avion bu avion ni mu diisee nga di di naw ci jaww ji xel moo calcul ba xam ne mën naa naw ci ci kaw jaww ji gaal ji rek moom xel moo ne mun mun mënta naaw mënta dox ci ci ci ndox mi bàgg xel a ko war yi bët du yenu nga xam ne xam ne lu bopp attan jeex na xel xel ma attelé mu attali ma fekk na ñoom gars yi génn comme ça moom ñu war a def.
ah comme gars yi.
Hmm.
day nangu kees mooy ëpp yi.
ah moo tax ñuy ñuy.
déedéet déedéet loo ca munta munta dem Espagne ah naka la seen daal.
ah yow ko xamoo loolu bato bi mooy mooy mooy tukki bato mooy tukki daal fii la yem ci tefes gi
ah mais bu dee gars yi tax a tukki moom ku ci dee doo kon xaru woo bu fekkee bateau dox loolu la maanaam léegi ki dugg ci loo xam ne mën na caa dee dee ah mën na jaade wala turxu bi ay diikum ah tettalu ko bul yób bul doo sa bopp ci alkane bu ko bato dugg sa sa sa kaar loolu moom dara ah comme comme comme bateau la jolaay nga ñoo- ñooñ moom xaruñu ñoom déedéet parce que waaw.
mi ngi mel na accident dugg bato bu baax a baax mën a dara xew waaj nit ñi mu bëgg ko dara bi ba bato la joolaa ñoom réussir bopp lii du ko ñoom di fay seen xaalis war a dem Dakar am na am na lu ba ba taxawal xew ba ba léegi gi yow boo duggee avion mu daan ah xale wuti avion calcul nañ ko ba xam ne avion bi mën naa naaw waaye nag dañoo am njumte loolu la ku doon lekk fot faako loolu nga am njaayeen la waaye nag du du du maanaam du xaru ah gaaw da dafa bëgg lekk rek ba gaaw dina xanaa ceeb balaa jeex ma lekk ko waaye du xaru waaw du xaru de du xaru ah
waaw xam-xam lu neex
waaw wa- wax naa léegi mujj na xam wa- wax naa ko wax naa Cheikh Fall wax naa Cheikh Lo wax naa Cheikh Ndiaye nañ dugg ci galaas yi wala ñu def fii ab waxtaan boo sëñ sëñ sëñ Abdourahmane mu présider waxtaan wa bu dafay jël kat noonu suñu responsabilité ñun nañ ko dégager noonu ñi nga xam ne noonu diine lañ jàng noonu lañ xam ci diine nañ ko wax nit ñi am na ko ñu taxawal fee ñu lay la ñuy gudd nangam nangam ma ne leen ma ma ne leen yow yéen xamu leen dara yéen yéen xamu leen di fu am leen bëgg yéen amul bëgg ma ne ko ko yow xamoo dara yow xamoo dara di ma maa la raw fuuf xanaa xamoo dara yow waaw léegi nag loolu kon toogoon ab débat ñu waxtaan ko dañuy posé question ñu tontu leen loolu ci la c'est-à-dire dëgg ndax xale bi mën naa am ñàkk xam gi ñàkk xam gi moo moo koy jiw yow mi ko war a xamal na yow am nga ci musul yi ah am musul yi noonu am na ci musul yi noonu maanaam noonu ñi nga xam ne noonu ñoo ci jàngkat yi noonu am nañ am seen seen mbayit seen seen draman war naa ñëw fii toog fekkee waxtaan bi bu nekkee mu jël jël ci ci kàddu joxe wu mu digal en tant que sëriñ joxe digal ndigal ah maa ngi doon ndigal kat taalibe yi loolu moom sëñ Tuubaa nanguwu ko wax ngeen li mu xam moom ginnaaw ba nag ku def ah sëñ bi wàcc na wàcc na leer na kon donc macha allah
kon kooku sa baax na ma ma ma ma fii waaw yaa ngi moom. nga moom ñaar la woon de.
waaw jéem ah mi ngi moom.
ma man moom du ma leen ñaanal ma maanaam tey soo yóbboon sa xarit te Macky Sall président Macky Sall toog doomam toog sa xarit bi baadoo la ba pes doomi Macky Sall bu ñu ko dee pamtoo pamtoo yóbbu da nga ci wax dara yow bu dee ndigg laa de boo ci waxee dara dañ lay bëri moom yóbbu leer na
kon waaw. ah waaw kon comme ça kon dinañ ko jullee ah ma ne. ko kon léegi ñoom ndax comme ça ñu koy jullee di ko waajal dem toog ñaanal ko.
maanaam noonu noonu mun doxuñu doxuñu noonu ci biir mun li li ñuy dox mooy aada diine dafa am diine ku dul julli kenn du ko jullee fii ku ñu ku ñu julli bu faatu jullee la noonu doxuñu diine aada la aada la ko ko kon kon fekkee ci xaru moom aw yoon may ñu jullee ko.
li tax li li li tax du duñ ko jullee dañoo bëgg a tiimloo nit ñi l'islam ji boppam moo ne bul jullee kii mbiram lënt na ba ko ko borom ah xam nga fasalu ah ahli dikri am na waaw
yàlla bu amee 18 ans da nga war a dem laaj xam nga xel na yow xamoo xamoo marché ba da ko laaj ba ba- ba dem fa maanaam daa war maanaam nit nit daa war a laaj lu mu xamul nit nit war a dugg ci lu mu xamul nit nit laa nit woo woo waxoon de nit rek lu tax laajoo sëñ bi daal loolu lu mu wax man ko laajul man ko xamul laajul ko xam xaw moo leer. xamoo laajoo léegi avant ñu la man ah man man ne woon naa laaj nga laaj li ma xam nga si bi islam nag bokkut ak man lay wax mooy islam xëy xëy na mën naa wax ne moom kii nangam waaw mu koy mu nga àjjana mën naa moo xam man man àjjana man man man man moomu ko man mu àjjana de soo seen ñu ñëpp dugg ba waaye man moomu ko comme neex nag nga nga dikk ko ko neex ku ku ne la woon bu subaa nga doon ba pare sida man ko dama yowoon loolu suñu taxaw xool dana tax a jàpp ne da nga dugg tey tey ñu pare bu suba naa ci am yaakaar de yàlla fan. daa loolu loolu xel wut daa xel wut dafa am ay normes dafa am xel daa am lu mu xam norme la norme si bi ka man loola ka man loola ñëw na ka man loola Cheikh Moussa Ba guerre ba metti tane kan cinq mu ne mu ne su su- su ma kii rek ma soppi ci gi guy yi xaalis mag ñu xamuñu lu muy wax ñu xëy xëy toit bi déclaré ne dañoo bëgg ci gi guy gaa yi ci gi guy yëpp dem jaay leen ko xaalis bu bari toit bi dañ ci wax daal xamuñu ko def ñu génn ko rek kooku kooku borom doy la borom suñ suñ la ah sañ sañ la kooku sañ sañ la si mu saxee nee na sañ sañ balaa am sañ ja am da ngay dee wett ba noppi soo soo soo saa bu bëgg bu bu buntu yàlla bi bu bu yàlla mag la suñ bi gone gone dafa bëgg doom des bi non loo xam ne dafa dafa leer dafa am dafa leer. loolu lu sigle lu sigle lu sigle sëñ bi ku ne la nangam àjjana mën nga koo am te doo sonn si si si si laa neewoon na mag ñi def lu la neex am lu la neex fu fu ko way digg na ko wuti amul ci Ahmadou Mbacké amul ne so soxla wu kenn de fu fu ko way digg na ko wuti loolu suñu yaakaar wala kooku ay gis mu wóor yàlla moo moo moo ko gëne ku ku jiw sa bopp ci alkane boo faatoon dem sa war loolu mooy atte bi yàlla nag su ko neexee day fekk musiba jooju muy muy bu ko sa war fekk man mën di man ca baax bu ko jëlee kooku moo ko neex waaye lusik bi mooy su ma bëggee dem sama kër li yenu maanaam mooy ma jël oto waaye du du du ma dox wala suñu bi waaw saam jaxate bu ma dëkk moom dama na ko dox àgg fa léegi loolu lu si guddi lu si guddi rek yàlla bu ko jël ah wala si bi yàlla nag moom man mën na ko moom mën na maa wax ay baat rek yàlla solo ma ko ma wax ko daal di àgg loolu yàlla waaye yàlla li li jox na ma lu paas bu boo mën a jël taxi rek dem loolu kon mooy lu si mooy ma génn fii jël taxi dem si bi loolu leer na de alaxira wuti wuure kuy ku doog def lu bëri bëri alaxira war a dugg sa war bii mën a kooku àggu na loo doon bañ da nga gis lu ko raw gars yi ñoo ko mbiri lenn xam na lenn xam leer na leer na de moom waaw macha allah waay Oustaz